rapport am lu fi xewoon démb si guddi est-ce que mën nga ci dellusiwaat waaw am na lu jot a jàpp nag ndax démb si guddi ay 20 heures ah, gars yi dañu ñëw mais en sama moment dama doon nelaw damay nelaw nag ah, maa ngi dégg booy waa ji di koy saaga di koy saaga mu diggi ma tiig sa ay nelaw ba ma jógee ah, génn ma dégg ma xëcc ma xëcc ko danaa génn dama lay yóbbu si agent ba ban agent la wax nag exactement ma dégg ma naa ko agent si laa yóbbu man te ma génn ba bay génn solo mu mbubb sax ma génn ñëw taxaw fii ndax lan la man ni ngeen def bu heure jotee doon dugg mu seen kër yi waaw dama ne yóbbu si agent léegi na ko non pardon sa waay mi ngi doon tëj bunti mais pareegul mun na ko génnal léegi à ce nag moom dafa dugg si biir ba mu dugg si biir maa ngi xool mi ngi mi xool si pegg yi pour pour lu mën a yóbbu daal lu mën a jël léegi man tamit ah, mais ba ma génn exactement damaa gis sa waay moom dafa na benn panique ndax dafa yaakaar ne man damay ñëw pour def pour dal seen kaw mais ba ma gisee ma dugg euh, automatiquement moom am na benn recul bu mu def dafa daw ba si yàgg rek mu taxaw daal ne ko acca nañ dem garaaw nañ dem léegi waaye tamit beneen waaye bi dugg si biir ne ko non non duñ dem commencé tamit saaga ma man tamit ba ma saaga man tamit ba man tamit ma jël panique en ce moment man tamit ma ne ko non léegi daa ñuy def mu naan ma ko léegi dañuy bàyyi ma gis sama daal di dañ leen génne ñu yóbbu leen maanaam ñaari nit ñoom ñoo ñëw ci ci instant couvre-feu bi oui pour pour arnaquer way way ñoom automatiquement boo leen xool da xam ne ñu du ay policier ndax ñoom amul benn mandarga bu mën a ne lii mm, ah, yëre policier la wala yëre benn barge boo xamante ni lii moo mën ay policier leen ay civil leen def ñoom dañu ay policier leen mais man lu ma xamal ah, ñii du ay policier ah, ma gis waa ji ni muy saaga ndax policier dëgg yàlla bu fekkee dafay ñëw pour si nit war koy mais li mu insulté moo bëri trop à chaque moment buy wax sag moment bu chaque moment bu mu wax rek da dëgg dégg mu insulté léegi nag man fi ba ma duggee si biir ma ñëw di waxtaan ak moom nga dégg mu a ma a dañ leen ma ne ko léegi xam a garaawul léegi ma jël samay dàll ma dugg si biir jël ah, duggee si biir di xool lu mu jël ma gis mais en ce moment nag ah, booy bi jël nañ xaw moon en ce moment xaw moon eh, jël na ko wala jëlu ko ah waaw mooy booy sama téléphone léegi man te ma dugg jël sama daal li ay policier ma ko du ay policier mu ne ko xaaral ma ñëw bu ma ne walloo rek sàccoo rek rek waa ji tamit jël gaz bi rek yenu ko téye ko ni yeen rek daw génn ak moom daa ne ko taxal oto euh, kii bi ñu dem taxalal moto bi ñu dem man ba may génn gis naa waa ji dem euh, wat moto bi ma gis ñu ngi dem ñu taxaw fële sa waa tamit sànni ko xeer bi sànni ko xeer bi dal na ko sax xeer bi dal na ko moom kon daal gaz rek lañ fi jël fi jël ak téléphone bi ne moom nee na bi nag am na xaalis mais waxuma exactement ñaata la waaw xaw ma ñaata waaw si pochette la mais si ginnaaw pochette bi si def xaalis bi hmm. mais xaw ma nag exactement ñaata la hmm. fii wax dëgg yàlla man nag euh, yàgguma fi mais en ce moment nag gars yi ñu wax ma fii moom les gens sont très moo tax daanaka man amaa ñoom relation bu mel noonu. maanaam agression oui oui de temps dafay am. mais daal ñi fi ñëw démb duñu non non. ils n'ont pas l'air des policier parce que ñoom boo leen xoolee da nga xam ne ñooy policier ndax policier dëgg-dëgg du saaga policier dëgg-dëgg du saaga non pas encore mais am na temps boobu nag génn na dem mais xaw ma nag dafa dem police dafa yar daal la génn dafa yar la génn dem dem na police xaw ma police la dem xaw ma daal mais dem na daal man maa ngi tudd du Sall eh, dëkk ci eh, quartier bi nga xam ne mooy quartier Cité Lamy Euh, bon demb comme euh, nous pouvons le dire euh, demb ver vingt heures dafa am gàngu euh, malfra bu fi dugg comme ni ngeen ko gisee attaqué boutique bi nga xam ne moom moo nekk ci koñ bi et bi ñu ñëwee euh, dañ ko yuuxu ne ko police la police police lan moo tax tëjuloo à vingt heures mu paniqué euh, ñu dugg ci biir bi ñu duggee ci lañ def seen forfait jël euh, gaz am defe naa jël téléphone portable euh, dépouillé ko aussi comme ni ngeen ko gisee. donc loolu mooy énième fois ay attaques yoo xam ne nii ay dépouilles yoo xam ne gangu malfrats yi ñu ngi koy def malfaiteurs yi ñu ngi dugg quartier bi Cité Lamy di ko def donc mu doon loo xam ne ni vraiment lu doy waar la lu méttee métti parce que moment bi ñu toll ci temps de crise sanitaire ñun ñëpp yaakaaroon nañu ne ñoom danañ xalaat leneen lu di dugg di dépouillé évacuer ñi en plein jour parce que 20 heures ku ko wax xam euh, c'est en plein jour donc mooy li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu. donc malgré couvre-feu bi ak euh, bon la police patrouille yi nga xam ne ñu ngi koy def euh, loolu mu ngi am quartier Cité Lamy ba léegi et c'est defe naa la énième fois comme ni ñu ko waxee yu mel noonu di am démb su fekkuloon tey dëkkandoo yi ñu ngi fi peut-être le pire mënoon na xew mooy li nga xam ne constat bu amer bi nga xam ne ñu ngi koy def loolu lépp nag boo ko gisee xam nga problème mu insécurité moom mooy li nga xam ne yëpp moom moo jur fi duggee à partir de 18 heures ñemewuloo génn parce que amul éclairage public mooy première source de sécurité amuñu ko donc loolu la ñuy njëkk interpeller les autorités locales ak euh, peut-être euh, l'État ñu jàppale ñu ci quartier bu mel ni Cité Lamy parce que war nañu mën a am éclairage éclairage public boo xam ne tey boo génnee à pareille heure nga mën a xam fi ngay jaar mën a xam li ngay moytu mën a xam fi ngay dal mais beneen bi aussi mooy euh, li ñuy wax État Sénégal kooku on l'interpelle directement mooy tey quartier bu mel ni cité Lamy cité Senghor R100 au moins waroon nañ mën am benn poste de police boo xam ne ni tey yu mel noonu bu amee ñu gaaw daw fa wala tey bu fekkee patrouille am na mais tey boo xoolee cité Lamy cité Senghor R100 mooy quartier yi nga xam ne ñoo gën a populaire alor alors que amuñu poste de police amuñu poste gendarmerie donc loolu aussi lu ñuy déplorer la situation bu euh, doy waar la si mooy bon je pense que ni euh, comme ni nga ko waxee ah on peut dire que ni bii mooy euh, la énième fois wax naa ko waxati ko euh, ci période couvre-feu ci ngeen ci lañ gënoon a yaakaar sécurité parce que da nga naan à partir de vingt heures peut-être police mu ngi à proximité de la population mais on constate amèrement que ni tey am loolu amul gisuñu ko. malgré patrouille yi malgré li mën di am yëpp euh, jàpp naa ne euh, war nañ mën a gën a déployer agent yi quitte à ce que sax ñu def de patrouilles yoo xam ne ni c'est permanent nit ñi di taxaw euh, par exemple koñ bu ne ñu def fa deux agents de police wala ay ay ay ASP yoo xam ne tey dañ assurer la sécurité des population parce que mënuloo tëdd vingt heures alors que tu n'es pas en sécurité ay gang malfrats di fa dugg en plein jour di la dépouiller di def nag sulul noonu ci koñ mel ni Cité Lamy doy na waar trop léegi man te ma may dugg ci sama daal li maay dégg mu naan ma Omar mu naan ma ñii mu ay policier ma ko duñ ay policier mu ma noonu duñ ay policier ma ne ko xaaral ma ñëw bu ma ne walloo rek sàccoo rek rek waa ji tamit jël gaz bi rek yenu ko téye ko neen rek daw génn moom daa ne ko taxal oto kii bi ñu dem taxalal moto bi ñu dem man te ba may génn gis naa waa ji dem ah, wat moto bi ma gis ñu ngi dem ñu taxaw fële sa waa tamit sànni ko xeer bi sànni ko xeer bi dal na ko sax xeet bi daal na ko moom. kon daal gaz rek lañ fi jël. jël ak téléphone bi ne moom nee na téléphone bi nag am na xaalis mais waxuma exactement ñaata la waaw. xaw ma ñaata la daf waaw si pochette la mais si ginnaaw pochette si def xaalis bi mais xaw ma nag exactement ñaata la. fii wax dëgg yàlla man nag euh, yàgguma fi mais en ce moment nag gars yi ñu wax naa ma fii moom les gens sont très dangereux. moo tax daanaka man amaa ñoom relation bu bu mel noonu. maanaam agression oui oui de temps am. mais daal ñi fi ñëw démb duñu non non ils n'ont des policiers parce que ñoom boo leen xoolee da nga xam ne ñooy policiers ndax policier dëgg-dëgg du saaga policier dëgg-dëgg. du saaga non pas encore mais am na temps boobu nag génn na dem mais xaw ma nag dafa dem police. sa fa yar daal la génn sa fa yar la génn dem dem na police xaw ma police la dem xaw ma daal mais dem na daal. bi ñu ñëwee euh, dañ ko yuuxu ne ko police la police police lan moo tax tëjuloo à vingt mu paniqué euh, ñu dugg ci biir bi ñu duggee ci lañ def seen forfait jël euh, gaz am defe naa jël téléphone portable euh, dépouillé ko aussi comme ni ngeen ko gisee. donc loolu mooy énième fois ay attaques yoo xam ne ni ay dépouilles yoo xam ne gangu malfrats yi ñu ngi koy def malfaiteurs yi ñu ngi dugg quartier bi Cité Lamy di ko def donc mu doon loo xam ne ni vraiment lu doy waar la lu méttee métti parce que moment bi ñu toll ci temps de crise sanitaire ñun ñëpp yaakaaroon nañu ne ñoom danañ xalaat leneen lu dul dugg di dépouillé évacuer ñi en plein jour parce que vingt heures ku ko wax xam ne euh, c'est en plein jour donc mooy li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu. donc malgré couvre-feu bi ak euh, bon la police patrouille yi nga xam ne ñu ngi koy def euh, loolu mu ngi am quartier Cité Lamy ba léegi et c'est defe naa la énième fois comme ni ñu ko waxee yu mel noonu di am démb su fekkuloon tey dëkkandoo yi ñu ngi fi peut-être le pire mënoon na xew. Euh, mooy li nga xam ne constat bu amer bi nga xam ne ñu ngi koy def euh, loolu lépp nag boo ko gisee xam nga problème mu insécurité moom mooy li nga xam ne yëpp moom moo jur loolu. li ñuy wax état Sénégal kooku on l'interpelle directement. mooy tey quartier bu mel ni cité lami cité Senghor R100 au moins waroon nañ mën am benn poste de police boo xam ne nii tey yu mel bu amee ñu gaaw daw fa wala tey bu fekkee patrouille am na mais tey boo xoolee cité Lamy cité Senghor R100 mooy quartier yi nga xam ne ñoo gën a populaire Thiès alors que amuñu poste de police amuñu poste de gendarmerie donc loolu aussi lu ñuy déplorer la situation bu euh, doy waar la je pense que ni euh, comme ni nga ko waxee ah on peut dire que ni bii mooy euh, la énième fois wax naa ko waxati ko euh, ci. période couvre-feu ci ngeen ci lañ gënoon yaakaar sécurité parce que da nga naan à partir de vingt heures peut-être police mu ngi euh, à proximité de la population mais on constate amèrement que ni tey am loolu amul gisuñu ko malgré patrouille yi malgré li mën di am yëpp euh, jàpp naa ne euh, war nañ mën a gën a déployer agent yi quitte à ce que sax ñu def de patrouilles yoo xam ne ni c'est permanent nit ñi di taxaw par exemple koñ bu ne ñu def fa deux agents de police wala ay ay ay ASP yoo xa ne tey dañ assurer la sécurité des populations parce que mënuloo tëdd vingt heures alors que tu n'es pas jàng malfra di fa dugg en plein jour di la dépouiller di def euh, nag noonu ci koñ yu mel ni Cité Lamy euh, doy na waar trop